dellu kañaat bàkkaat wayaat dellu sulliwaat ndami soxna jaaraaki jaloorem nu ñaaxuwaat maam mbokk soxna yu Argentine amal na nañu màggalu maam jaara proxaan fii ci réew bu Argentine def nañu nag ci bis bi lu am solo ginnaaw bi nga xamee ni am nañu mbégte mu yaatu lool ci taxawaay bi nga xamee ni moom la seen jëwrin soxna Safi Thiam daal di taxawee ci daayira Mame Diarra bi ba àggee ko fu faw xas seen njortu ba daal di tax ñu def ay tiraanga yoo xamee ni yu am solo la daal di koy sargal ci digg mbooloo mi nga xamante ni si ni ñoo woy si woon bisu maam soxna Jaaratullaahi kon dañuy daal di seetaan décor bu am solo bi nga xamee ni rek def nañ ko jëmee ko ci jëw li ñu daayiri maam jaara wax sant yi toloo ku dëkkaale ak yàlla ngi ni ba jobaani kuréy ay jaloore di xudwatu saalihaat lu jim njaaga ah. maam jaara di njaag umu say xamoo man dab lu fees lii dellu kuy ñëw di rek di xaat samam koom a ngi ndamba ngi soxna jaara mi di ko day di waaj taay wow koy waaja taaru waat samam koom a ngi mooy àndal ci xolom rek ñu bi nu ci jógee dëkk mbokk yi daldi def lu rafet kenn ku nekk làmb sa poos ñu dajaleel soxna ci limu xaalis bu bari ngir sargal ko man góor ngi ku ak pëste fa ngi tey ku sàmm waat dal di def nag jëf bu rafet dal di jëlaat loolu lépp jox ko àddiya sëriñ seex Mbacke bi nga xam ni mooy kilifa bu Argentine fii. ak njaxlaf ga ah. yin moo di gànjaram sa bi xoona sa bi xoona ko daay jiwaat te teggi la defu ko daay ragal yàlla di budd mu war sal ker saayam san ci kër doylu dikki waat équipe bu Touba Argentine màggalu Porokhane Argentine 2019 ñu di leen jox dox daje yeneenu màggalu poroxaan wasalaamualeykum wa rahmatullah suma